ñoom jërëgeen jëf suñu mbokk yi ñuy topp ci Leewtoo TV mbégte ak contentement lañuy am heure bu ñu jàkkaarloog yéen tey nag ñi ngi seet si benn champion ba nga xamante ne bii dafa amoon bis bu mag doon jàkkaarloo ak ki nga xamante ne bii mooy Modja bu Yoof euh, di caat booy bambara moom la ñu seet si tey gannaaw ba ko suñu borom mayee ndam ci digganteem ak ja caat ñi ngi lay ziar. waaw salaamaaleykum waa Leewtoo TV gannaaw ma jullee si bi sant sama ñaari waajur di sant ñépp di sant ñu ma àndal noo fa war a seede mais sim naanu simnano ɗon goɗum fayi simago ɗum simna fof goto feere ma fa teɓ ka tuna nofna fayako bon nofna ɓetendi hattina ñoƴo bon nofna fayakoye tamit iwen simna ilke fop iwen simna ildi salum fop i mbasi o leng simna log simna sinik simna fep i mbasi leng la keɓ no seede to leya men ere caade simnama ziyadam alayanga salla ke mbaɗiɗa ñan koy ñaninene mbaɗiɗa in contant no rawtina jonwa fani gen ma itam jonwa ñojor yonen ziyada no maton kontan no itam jeeyi david num mhm, andun fof dal jeeyi david den keɓe ɓiyo serere to laami ere caade simnoma ja jafalam allah ganu nu ñana i dok ngel ne mbiya fulla wa mhm, nu jam ngeɗana nu wot nu damta in amin amin yàlla yàlla nangu ñaan ak li nga xamante ne bii moom mooy mébét yi euh, euh, caat victoire neex na waaw neex na moom macha allah. ne mm. tàmm nañ ko daal. Mm. Mm-hmm. dégg naa mbër bu daanee day teel a yeewu fajar la yeewu. no man moom sincèrement parler moom loolu moom sama habitude la quoi. Mm. même bu dul làmb sax même su suñ ma daanee suma daanee damay teel a yeewu. parce que damay yeewu bi ma yeewoo tey rek damaa yeewoo rek toog ba ay 6 heures yooyu si laa demaat géej def sama dégg naa mbër bu daano bu daanee 6 toog ci toog buntu kër gi di xool ndax gars yi ñu ngi koy ñu ngi koy xool waaw wala déet quoi non man moom bi ma bi ma daanee moom du ma def parce ma su ma daanee yàlla day def su ma daanee damay dem géej def sama footing su ma délassé woo sangu géej ñëw jëlaat oto ñëw tëddaat si kër gi récupéré toogee samay nit mais du ma def yeewu ñoom toog fii moom pour gars yi xool parce que gars yi li ñu bëggoon defar naa leen ko mooy victoire lañ bëggoon ndam indi naa leen ndam. kon tey bi nga bi nga xëyee dem nga géej. waaw damaa xëy dem géej def sama footing. def footing bu ndaw. délassé délassé wu sangu si géej gi xam nga ñëw toog sama gars yi di waxtaan ak ñoom. Hmm. Caat dañuy ñëw ci avant combat bi gis nan nga demoon États-Unis préparé wu ji lan moo waraloon nga demoon euh, Amérique. waa xam nga gars yi chaque instant dañ ma ko doon laaj. ndax combat bi moo taxoon nga dem États-Unis wala combat bi taxoon nga Modou adversaire la yeneen mbër itam adversaire parce que bi ma ko daan wax ne Modou taxul may liggéey gars yi ma de gars naan naan ndax damaa xeeb Modou xeebu ma ko parce que mbër boo gis mu jël sa sa avancé mun na la daan parce que boo gisee maanaam Modou li ma doon pour Modou sama vidéo yu bëri ñoom wanuma leen ko waruma leen ko li ma doon entraîné États-Unis waruma leen ko ñëw ñu bëri parce que daa may entraînement yi léeg-léeg yu ma leen doon wone mu ngi États-Unis ñi naan dara xam nga ñun ñoo xam li ñuy entraîné booy booy booy dem booy dem booy dem di guerre ji sa armée doo ko wone mhm. noonu la demee sama yenn entraînement yi ma doon entraîné ma ko daan denc am yenn yoo xam ne dama daan cofal parce que promoteur bi sax woon na fi pour mu envoyé ko vidéo mais am na vidéo yi ma ko envoyé mais bokkul ki ma doon entraîné diir nag te bokkul ki ma doon entraîné boxe quelque laa ko envoyé noonu bàyyi ko si biir ñu monté ko gars yi gis ko mooy loolu quoi en tout cas bi ñu dem États-Unis daal liggéey nañ liggéey nañ entraînement bu wóor nekkoon nañ suñu bopp tamit Euh, information bu tiis euh, dal la sa gannaaw bi nga demee États-Unis muy sa papa booy bambara foofu nga yëgee ne génn na àdduna bi la waxee information bi noo ko dundee. waaw bi ma waxee information bi na ma. métti parce que suñu borom moom ke mun taxi coog moom suñu borom ba léegi jëlagul jëlagul lu mu moom lu moom rek lay jël. lu mu moom rek lay jël jëlagul lu mu moom. te du juum kenn du wax ne bu jëlee ba ñu ne daa juum non non suñu borom du juum lépp lu mu def rek daa génn bi ñu ma ko informé nag. jaaxaloon na ma parce que gars yi dañoo tàmm di rey nit te di deewul mais man bi ñu ma koy fekk juste salle fekk may def sama dernière séance pour pare ni may solee sama yére sama téléphone sonné am ku ma ko naa ma dégg nga li ma dégg ma ne ko la mu ne paa bi moo gaañ ma ah. mu ne waaw mais gëw ma ko woon nag may biti si la sama grand frère bi woo Souleymane ne ma effectivement noonu la amee ko mais axat mais yàlla na ko a yem parce que buggee ma ko woon noonu sama ginnaaw buggoon naa ko fekkee ba bokk si ñi nga xam ne ñoom ñoo koy mujjee gis waaw ma xëy na li yàlla lii la jàll dogal nag yàlla moo dogal ne sama ginnaaw lay gaañoo waaw ñu ngi koy ñaana fu mu nekk suuf sedd si kawam fu mu jëm gën ko fu mu jógee. mu nekkoon ku sori ci lool ci yow lool doon la jàppale ci làmb. Mm-hmm. Euh, biñ la neen euh, wàññeeku na te mënoo mu leer la ne mënoo fekkee si li nga xamante ne bii moom mooy dëj bi. Mm-hmm. waaw mu leer ma mënoo fekkee si li nga xam ne mooy dëj bi métti na trop. parce que su ma sañoon damay bokk si xam ne ñoom ñoom ñooy yóbbu ñoom ñooy yóbbu koor gi mais yàlla def na bokk ma si kenn na loolu la yàlla loolu la suñu borom namoon mais bi ma ko bi man toute la eh, chaque instant ne ba daan ko ñaanal rek waaw da di ko ñaanal di revenir ay passéem di daan waxtaan man moom lu si lu bari ba si combat bi itam daf ma si yee lu bari tamit. Mhm. lan nga gën a jàpp ci lim la doon wax lan moo la gën a marke et ci ak dundam. waaw man li ma daan jàpp si lim ma doon si lim ma wax mooy bu demee bu ñu demee école rek. parce que dafa ne mbër fépp fu ñu la laa war nga mun a bëri li ko jee sa wew sa karaw bopp ba sa wew tànk fépp fu ñu la laa war a mun a bëre man saa ne esprit boobu moom laay demee esprit boobu moom demee saa su ne tam mun a mbër ñooy ànd waaw. esprit koy jàpp ak mbër ñooy ànd waaw mbër ak mbër ñooy ànd koy jàpp. mu ne buñ la ànd buñ la jàngalee dara même boo ko mokkalu boo demee kër ga dee koy pratiquer wala boo génnee si mbedd bi ngay dox di ko pratiquer. waaw parce que Sinoa ne bu ñu leen jàngaloon boxe dañuy dox lu mot un kilomètre di di def boxe si mbedd bi boxe boxe loxo lii ba ñu mënul leen jàngal loolu yëpp dafa ma dafa woon quoi ak sama combat maag ambulance bi loolu yëpp image yoo xam ne daf daf may revenir la quoi. mais mu gaañoo. Mhm, parce que moom saa yu déggoon mun naa wax ne man maa ko gënal ay doomam sax. waaye man maa ko gënal ay doomam. heure bu amee lu ko métti su ma demee këram rek mu giif loolu bokk na si ma gi ma gën a impression yàlla moo boole nag moom daal. waaw mais xëy na maa ngi ñaanal yàlla dafa ko jàmm. fu mu fu mu ñu ñu ñëw nag léegi sa combat ak Modou Dia coow li bëri woon lool ci préparation bi lan moo lan moo waraloon coow li. waaw hmm. ah, li waraloon coow bi moom waaw xamul rek moo jëdaa xamul rek. xam nga ne ku mel ne du ma wax ne mënu bëri nag te du ma wax ne amul doole. entraîné na liggéey na mun na mun mun na bëre mais dafa fekk ndaanaan. fekk koo xam ne tamit dafa tar bi booy fooy bëri bu ma nekkee booy ba léegi man làmb laa xam xamuma leneen lu dul làmb bu ma nekkee xale ba léegi ma màgg bëri waaw dama juddu si bëri mooy si nijaay ak si papa waaw ak sama waa dëkk tam cosaanu bëri la waaw dama juddu si ba ma ñëw tam taxaa fi champion yor ma booy bambal kooku nag boo mënu bëri dañ la koy laaj ma ñëw dëkk si keppaaru Grand Dakar dëkk Keppaar Grand Dakar juddoo jàmm gën yaroo jon waaw kooku xam nga man mënuma ñàkk fit waaw su ma déggee nit ñaa man awma fit te loolu daf may jaaxal waaw mënuma ñàkk fit xëy nañ ko xam ne mbër bi nga mbër bi nga tasee bariwul bariwul wax boo demee xëpp ko wax ju bari ji waaw xëy na loolu woon quoi te ñun ay boy town lañ quoi Grand Dakar lañ dëkk ku muy dox suñu maayen mhm. làmb ji ci biir géew bi la du wax kese waaw du wax kese si biir géew bi la du wax kese parce que làmb biir géew la quoi lépp lu mu doon wax rek man suñu ma laaj dama daan bu bu jour ba parce que dafa noonu bi lépp lu am si géew moom moo koy def waaw bien vrai que li mu doon wax am na mais mais bu ma dóoree dama koy song si est ce que bu ko dóoree song bi ma ko parce que heure bu dóoree dama koy remise mu dóor ma remise ko waaw noonu la demee. mu mel ni woon xeex ci combat bi. man déggoo li ma combat bi déggoo li ma waxoon naa ko sama mhm. si. bu doon. luy rey nit préparé naa ko si combat bi. luy rey nit waaw. luy ren préparé naa ko si combat bi. kon combat bi fi mu la toll woon sori na. ma de man bi ma demee états bi ma demee États-Unis kenn xamu ko dugg naa salle MMA un un mois naa ko un mois bàyyi ko sama biir yaram te kenn xamu ko. Eh, kon fi mu toll nii def nga MMA. def naa MMA foofu même ki ma nekkaloon sax bi ma fa nekkee mi bi ma fa nekkale ba mu jàngal ma ba ma nekk ay sànni dama war dem New York pour préparer sama combat bi may ñibbisi. dafa am lu ko metti quoi dafa am décision parce que si diggante bi ma doon lijjantal combat mais dama ko sama combat yi ma bàyyi Sénégal foog ma dem bëre ji ko parce laa ko waxee. loolu euh, ñu gis euh, combat bi nekk combat bu combat bu metti wante nekk combat bu neex wax nga ko heure bu dóoree euh, da ngay remise bi nga jàppanteeg mujja mujja lan nga yëg ci moom andi na doole wala. waaw bi moom ah am na doole moom mais mënu feeñ sama kanam. lu tax parce que boo xoolee jël jël na ma jël boo xam ne egg na ma foo xam ne ku amul doole bu ñu ko fa eggee kon làmb bi jeex na bu yàgg. àggoon na la fu sori waaw àggoon na la fu sori mais foofu sama liggéey moo fa téye ak sama doole. Mhm. waaw. Mhm. moo tax bi ma moo tax bi ma ko bi ma ko jàppee bu bu ma rëccee ma jàpp ko ma xam ne kii kat bu ñu rëccee fii premier jàpp bu ñu jàpp dootu ma ko gaaw jàpp. Mhm. moo tax ma mooy foofu téye. parce que xam naa parce que xam naa su ma ko dootu ñu jàppante fa lay nekk di léewtoo ba làmb bi jeex. Eh, moo tax ma jàpp ma jàpp rek xam ne kii balaa muy génn ma bëgg te lu muy bëri si loolu si da lay ja forum ko fekk si forum laa ko fekk si. Uh-huh. waaw. Uh-huh. si forum laa ko fekk ñu gis benn affaire bu doy waar ci biir làmb ji dañuy delluwaat gannaaw avant avant ngeen di bëre ñu gis benn affaire bu xaw a doy waar benn sëriñu mot ja nga nga nga nga fekk ko muy def ay affaire nga xaw ma da nga koo fël xaw ma da ko xaw ma da koo riñaan daal xaw ma num mu demee noonu mbër. noo xamal gars yi dañoo nekk di bànni bànni na ma yàlla baal si kàddu gi sax. ko uh-huh. ko xaw ma ban xeet la xaw ma fu mu jógee. xëy na làmb moom façon ni ku ne moo fay ñëw xam na ñoom la ne def ko yaakaar man maa ko def exprès parce que dama ko gis mu dugg si biir géew bi dëmb dëmbul dugg si biir naa ay làmb yi jeex na mm. ma tool fi ma tool ma ne ko kay fii balaa ma balaa balaa may am jàmm ma foog def ko dara moo tax ma daw si rek police de ñoom mañ ma jaar foofu ma daw si rek jubal si kawam dama ko fël ba mu daal yow sa tànk dëgërul dëgëroo loo ñëwee làmb mais mbër yow tamit mënoo tooñ non tooñu ma de ah mais yow kooku jegewul la nekkul xamoo lu muy def nga ñëw mbëgg ko waaw mais daa nu may def. mais loolu est ce que xalaatoon mënoon naa andi incident ci làmb. ban incident ah bu ngeen incident xam moom moo ko indi rek yow ñun suñu ñun suñu ñun suñu sëriñ ñu ngi indi ñuy taw si ginnaaw. moom mu toog si diggante di jaabante mel ni ginaar bu tooy ah. naan làmb ji jeex na. waaw naan làmb ji jeex na yow loo xam ne. sif nag loolu moo la gën a naq ne naan làmb ji jeex na loo xam ne loo xam ne sifle wu ñu naan làmb ji jeex na moo tax ma ñëw fekk moo dafa am sens sax. nga mbëkk ko. lii lekk laa ko teg. sama bisab bi rek moo ko dal. épaule nga ko dóor. épaule laa ko dóor mu tat tari xam naa su ma ko dóoroon sama dënn bi fu mu jëm. Euh, jaajëf mbër doy na waar léegi nag ñu ñëwaat ji combat bi ñu gis ne combat bi arbitre dafa suuf la ngay xaar sawaay lan moo tax nga ko doon xaar. <laughs> voilà xam nga làmb yëpp la. Mhm. bi abi sifle ma li tax ma doon xaar sa waay bi abi sifle li ko doon xaar. Mhm. nekkul ne dama ko doon xaar parce que làmb yi man dama si am loo xam ne mosuma ko am si làmb. muy lan. sama waa dëkk dañoo mobilisé wu. def ay def ay biis ñëw seetaan si ma waa ñaari tali soxla ndam li façon mbër bu nekk ñaari tali woo na ma autorité bu nekk ñaari tali woo pour ndam li ñëw fi mu ñëw ñaari tali may génn fii xale yu ndaw yi génn nekk xale yu ndaw yi nga xam ne xamaguñu dara sax ñoo may naan caat ta caatu teyal jëla sa foo dem laam loolu lañ wax dalal dalal dalal moo tax di gars yi nit ñi bëgg rek laa leen defal parce que man ak man ak blessé bi ma dox si de ma ko ma gars yi conseil ko loolu laa def ñëw toog dal léwtoo xool li mu indi waaw. Mhm. nga xaar ko ñëwul. nga dem. waaw ma xaar ko ñëw ngeen daje. non dama ko xaar ñëwul ñu dox ñu dox góos ñu dem si côté saako yi. ma indi waa ko si digg géew bi. bu ñu ñëwee bu ñu ñëwee ñuy léwtoo. man ma dox si waa ba si ba si kanam ba ba si centre grade bi tam ma dox si boobu. mu sànni mu sànni. combat baa ngi nii mën nañ ko mën na ko seetaanandoo. mën nañ seetaan seetaanandoo combat bi mi ngi ne gis nga. Ah. arbitre dafa dafa soufflé yéen ñaar ngeen ngeen ngeen demee wet. Uh-huh. Euh, nga dagg lewaatoo bi taxawaat. ñu demee wet dagg lewaatoo yi. Uh-huh. bii boo xoolee si arbitre daa arbitre baa ngi naan bëri leen bëri leen bëri xam arbitre loolu. moo lewaatoo bi moo yàgg. mais loolu. mais arbitre loolu tamit seen rôle la. non non loolu du seen ñoom dañ si war a maandu. Ah, seen yoon nekku si seen yoon si. yow boo gisee yow lii si bëri rek am. yow si bëri rek la am boo gis boxeur yi ñuy ñuy dox góos ñu ba arbitre naa ne nii nii nii du am ñi rek ñoo ko siy def mhm. nañ ñu bàyyi ñu bëri jël suñu temps comme temps la ñu may mhm. waaw bu temps bi jeexee nag ku si bëréw ñu jox la affiti nga xam ne bëréwoo mhm. waaw ah, ñu gis ngeen di lewaatoo fii waaw fii ñuy lewetoo muy dox muy dox mu saani mu dugg ku mu dugg ku waaw mu dugg ku ma dal ma remise ko mu génnaat après mu duggaat beneen man tam ma remisaat parce que moom dafa yaakaar ne bu dóor bu yaakaar bu dóor damay reculer mais day dox day dóor bu tegee tànk ma bu tegee tànk ma teg tànk foofu fekk foofu uh-huh, waaw. ñu demee wet. heure bu dooree nga remise waaw heure bu dooree ma remise. Uh-huh. waaw. sa bopp. di dox ci kawam dox ci kawam taxaw di ko xaar. Uh-huh. Mm-hmm. waaw mu mu doxee côté ñu lewtewaat man tam ma remise jox ko. waaw mu mel ni da nga ne woon toog ci kaw combat waaw mu jël sama mu dugg ma ma jël tànk bi ma yëndu ko. mu ñëw da ngaa da ngaa tànk bi mu reculer. dama yërnu tànk mu mu sànni ko man tam ma sànni waat mu arrière. waaw. Mm-hmm. yéen ñaar ñu gis ci yéen ñaar yéen ñaar ñëpp ngeen bëggoon combat bi. Mm-hmm. waaw combat bi loolu la foog ñu bëgg ko. Mm-hmm. parce que combat bi wax ji moo bari woon. waaw boo gisee maanaam wax ji moo bari woon. moo jël nawloo ma woon quoi si combat bi respecté wu ma mel ne nag ku la xeeboon moom. non daf ma xeeboon. daf ma xeeboon parce ba nga xam li ngay xeeb bu fekkee rey na la ba jéggi la. daf ma xeeb bi rek man loolu moo gën a métti li ma wax si premier signature bi. nu mu la waxoon. mu ne ma mu ma caar sa jarana ma ma daan ko. ma daan ko ba ñu dem suuli ma. ñu dem suuli ko moom. mu ne boo ko daanee jaral na ko loolu. waaw moom mu daan mu moom moom bëgg na ma daan ba pare. mu dee ñu dem suuli ko. ok daan ko daal jaral na la lu ne. waaw loolu la ma wax. waaw ñu gis fii yan ñaar ngeen daw ngeen ngeen daw daje. Mhm. waaw gis nga. waaw fii lañ fii lañ dajee maa jël tànk bi téye loxo bi di ko baraake uh-huh. bi ma koy baraake mu bañ mun na bëri nag daanaka mu bëri kat la ma ëñ ko nga ëñ ko ma ëñ ko ma ma uh-huh. suuf riposté uh-huh. waa korosi loxo bi suuf wàcc suuf jël sama bopp bi féetale ko suuf parce que moo a ma gën a tuuti du ma na du mu féete ma suuf man naa ko féete suuf fii jàpp boobu moom fii la jàpp sama kii bi fii la jàpp sama téere fii la jàpp uh-huh. waaw léegi bu mu sama téere mu jàpp jàppoon na si ngemb jàpp na si ngemb uh-huh. après si laa sukkee nii def sama zone gisoo ah, si la ah. fii eggee fu sori gisoo uh-huh. fii lañ tartade mu dem mu samp om ma ñëw génnaat ma xam ne fii su ma ko bàyyee fi dootu ma ko gaaw a jàpp waaw mm-hmm. fii benn loxo nga jàpp bi laa jàpp jël loxo benn loxo bi di roqos pour mu sigi waaw Eh. moom tamit dafa mel ni jàpp na la fi. waaw jàpp na mais mënul jàpp na mais mënul liggéey. Mhm. parce que ñaari loxo yëpp a jàpp. ñaari loxo yëpp a jàpp waaw ñaari loxo yëpp a jàpp mënul liggéey man tam sama benn loxo bi laa jàppee di dóore benn loxo bi. Mhm. pour mu mun a siggi. Mhm. gisoo pare bi may dóore sama sama beneen loxo a dóoree waaw sama loxo droit a dóoree. bi ma dóoree mu siggi ma jàppaat. léegi bi ma jàppaatee loxo gauche bi ma ma indiwaat loxo gauche bi tam pour mun a jël tànk bi. Hmm. après si si moom si la ma seexalee tànk bi xam naa si tànk bi la jëm. si la ma joxee tànk bi nii. Hmm, waaw waaw si tànk bi. moom xam ne ma jël tànk mu doo mu doo tànk. mu door tànk waaw mu dooy tànk nag. ma waaw ma tafu ko dama ko def rotation. Hmm. jaar jaar si kii bi si pokotaan bi. waaw jàpp si ginnaaw ngembul ak si côté bi. taxaw ràcc sama tànk di ko déglu. waaw mu bañ ma lonku. ma lonku cax ba moom ma jéem a lonku cax ba pour ma dem. Mm-hmm. après ma ma suul samay suuf. Mm-hmm. suukar ma suukar bi ko ma jéem ko bës mm-hmm. mu woon fi yenu sax. loo doon wax na loo ko wax de. waaw dama toog si kaw ma ko doo doo dënn bi ne ko doo dara. waaw na ko doo dara. boobu lu mu la wax moom. li mu doon wax signature rek. ay kaay lamb yi jeex na après dugg na fi gën na fi xam nga dañuy a jox suñu maay ay dem naa seen dëkk dugg na fi gën na fi. loolu ñoom suñu dëkk mënuñu fa am dara mënuñu fa am dara déggoo ma de ki ki ñu tax kii tax muy kii tax muy ñëw côté yooyu noonu ñu ko mun ñoo ko fa nekk. Mm. kon moom am na sëriñ sa dëkk. déggoo ma de nekkul suñu dëkk de si yeneen dëkk mais tax muy ñëw foofu noonu. am na dëkk yi jege seen dëkk. man maa man maa yegg benn vidéo am. Mm-hmm. man envoyé nañ benn vidéo mu dem benn dëkk foofu noonu mun naa day dugg si ndox bi. dañ ma dañ ma envoyé ma rey ma ne ko kii rey naa ko bu yàgg. barke yàlla. boobu nga ne rey nga ko. barke war na yàlla. léegi nag euh, Thiat. Euh, ñu ñëwaat ci li nga xamante ne bi mooy sa papa booy bàmbara ñu gis heure boo mosaa am komba bokk na ci ñiy mujjee wax ak yow euh, démb bi nga gestoo gisoo ko moment bi mu doon wax ak yow bi nga tolloo ci moment boobu noonu sa yaram daw na waaw moment bi mu doon wax ak man bi ma tollee sama yaram bi ma tollee sama yaram daw na mais après li ñëwoon li ñëwoon sama esprit mm. mooy mbër bi ñu la jàngalee bu ñu la jàngalee bare demee sa mënin boo dem ba sa mëninte la nga indi liñ la jàngal moom loolu la loolu la ma daan wax mooy du ma la wax mu bàyyi sa mënin mais boo demee ba tële sa mënin liñ la jàngal indi ko nga bëre ko loolu ñaar yooyu dara du si échec man esprit boobu laay demee si biir làmb saa su ne si laay demee waaw mais mais avant may ñëw tam ñi ma war a yëpp yëpp nañ ma ñu ma war a conseil fii lañ ma conseil si salle bi parce que xam ne su ma demee day digg lay digg géew ba dootuma am jot sa di leen déglu waaw kut kooku dem bëri ji rek laay gis waaw mais fii lañ ma conseillé fii muy père jaxaati père daa ak zil waaw mhm. góor gi daal lim la doon wax euh, defal li nga njëkk a mën ba pare bu loolu jeexee nga soog a andi li ma la jàngal nga soog a li ma la jàngal man saa suñu esprit boobu laay demee mhm. léegi nag nga jóge fan nga jëm ah <laughs> fi ma jëm koy gaañ fi ma xam ne mu ñu man moom si combat kii gaañ nii gaañ man instant ni gën a xotteekoo rek xotteeku mooy lan mu gën a xotteeku nu mu gën a nu mu gën a diisee rek gën a ne nder daal gën loolu laa bëgg lu wow koŋ lu wow koŋ. waaw ñu naan kii bu jàppee caat tey mu dee. yow laa bëgg de. mais am na ñu nekk sa xel quoi. ah ñu nekk sama xel mooy seen dof boobu mu àndaloon démb rek. man dof. njool boobu noonu. <laughs> kooku day dóor de waaye. kooku loxo yi comme élastique. kooku loxo yi woyotul léegi. yee Malick ñaa ngay wax de. kooku lu mu yoroo yëpp a jeex. yow Malick ñaa ngay waxal de. déggoo ma de lu yoroo yëpp lu mu yoroo yëpp a jeex. léegi nii jàkkaarloog yow wax ko loolu. ah kooku day dara Malick ñaa moom bu mu ñëw de bëree dafay yàgg. mun nekk fii di daw mu ngi naan bu amul combat instant dina bàyyi na ñëw. waaw nee na ren moom bu amul combat day bàyyi. balaa muy bàyyi nag suñu combat taxaw nii na ko gas na ko pay Gaston taxawal. Mm. waaw na ko pay Gaston taxawal soit mu ñu jox ma Zos wala Garga Mbossé wala Moussa Ndoye mm. waaw. yow daal fu wow koŋ. wala saa wala saa Thiès. saa Thiès na. Ah, waaw xanaa nag caat nag caat nag déedéet nag yow tamit nag saa Thiès. ah mais yow mais yow loolu ñun la ne ma uppale. xam nga fan la jógee déggu ma man lijjanti ma fu mu jógee. déggu man bu nekkee Moussa bu nekkee si côté bëre dàqu ñu ma bëre. bu nekkee si côté xeex gën maa ñeme xeex gën maa dàqu ñu ma xeex bu nekkee côté entraînement gën maa ñeme entraînement. bu nekkee côté social tam waxatuñ ko. waaw xëy na làmb ji moom ku ma am ndey rek moo bi am ak ku ma amul ndey. waaw noonu lañ ko mën a waxee. mais yow daal pare nga pour bëri ñoom ñooñu. naa pour bëri ñëpp Moussa Ndoye Sa Thiès. man déggoo de bu weesoo Garga Mbossé déggoo ma mbëri ma bokk Malick ma bokk ak kàcce nii. teg sa bët tàng na. bu weesoo mbëri ma bokk ak ak mbëri ma bokkal village si ndox mi bàyyi ma fi benn mbër ku ñëw ma affronté tàng jër. dëgg tàng jër indi la bi. waaw cinquante cinquante mooy lan. tolloo tolloo. <laughs> loolu say slogan la quoi. samay slogan loolu mooy fifty fifty cinquante cinquante tolloo tolloo. xanaa use ba nga ko jëlee. non jëgoo use ba sax lépp fii la jógee rek mais ko yóbbu use ba. Ah, mais mu ngi mu ngi dox use ba. parce que sama booy may nekk foofu ma woowee mm. si fifty fifty bi ah. Mm. ñam na ci fifty fifty bi da nga cee bëgg a ñamal yeneen gars yi. tuuti laa ko si ah, xam ne tuuti laa ko si joxuma ko lépp. kon lu bi. Mm. man séeréer dañ ma sas. man daam fu ma foofu nekk si làmb léegi séeréer yi essayé dañ ma yaakaar. séeréer yi dañ ma yaakaar ñoom yëpp a ma yaakaar ak lu séeréer yëpp amu toujours làmb si séeréer yaakaaroo ma fu mu toll nii jamono yi mhm. waaw moo ay saa amatul dara lu may tiit. fi mu toll nii. waaw xel mi dal na. xel mi dal na te pare naa man wax waxoon naa ko fii te dinaa ko waxaat man làmb ji ma si mayatuma si 15. làmb yi code laa si doon dama si doon code. code mooy la. code laa lu mu laaj dama koy def. bu jeexee nag dégg naa sànq nga dama combat bi jàll bu laajoon bakkan sax. déggoo ma de bu jeexee nag ñu julli ñaan suñu borom mu baal ñu. mel ni caat fi mu toll nii danga ngaa engagé wu. dootuñu bàyyi benn détail ah boo engagé wu gars yi engagé wu faa faagagal la kay. nga engagé wu ah, loolu la de. ah yi moom loo bàyyi ñu jël ko. man de moom ku ma nar a faagagal moom faagagal la. ku ma nar a faaga ba suñu bët yi jaax ma ma da may faagagal ma faagagal la. Mhm. sax wax. Mhm. a ah, mbër boo xam ne da ngay signé moom koy naan caat bëgg naa ko daan sax su ma ko daanee sax ma dee sañu suuli ma. Mhm. ma xam ne daan naa caat. kooku nga xam ne nga xam ne pare na la. pare na pour léegi. waaye moo dara. du ma bàyyi dara damay dem si maam yi maam yi safal ba mu saf sap waaw ma demaa si nijaay même soos yaay même chose bàyyi ma fenn waaw. combat bi nga ci am. munu ko lim sax barke alquran karim ma ko lim. Hmm. combat dafa yàgg te dañ ko waaj bu baax a baax a baax ay dëkk-dëkk ñoo ma jàppale. Hmm. ay dëkk séeréer ay dëkk-dëkk ay maara maara hmm. waaw dëkk boo xalaat nag am naa fa maara waaw xam na sama open press bi maa ngi doon wax gars keroog gars di def ay ree man indo am naa fa benn xarit indo Inde. waaw Inde. am nga sëriñ bu nekk Inde. boo ma ne sëriñ xarit laa la wax mooy sëriñ. mais junj doy na borom xel xam waaw Inde yi moom Inde yi de moom dañuy dégg naa ñoom bi ñuy football sax booy mësaa football ak ñoom. Ah. bal bi dañ koy soppi li ab bërigo. waaw moo bu ko sànnee boo ko mbëkkee mu mel ni bërigo ci yow. moo tax borom bu ma gisee borom njañ yee dem mel ni ginaar bu tooy loolu de maa jaaxal mooy njañ yooyu noonu mooy loolu. ay ca mbër léegi kàddu gu mujj gi kan la kan ak kan ngay gërëm. waaye kàddu gu mujj gi xamaa di gërëm sama yaay Ndeye Sali madame la ministre maa ngi koy gërëm bu baax a baax di gërëm monsieur le maire Jean Baptiste di gërëm maam Thierno di gërëm autorité Grand Dakar yëpp rawatina suma yaay ndey Sali di gërëm Père Mansour Diop Grand Dakar fii di gërëm dooro xam nga di gërëm Xayta Seck Seydou Wos Thiam maa ngi koy gërëm bu baax a baax a baax a baax kooku moom yàlla moo ñu boole man ak moom ak jëkkëram maa ngi ñaan yàlla defal leen jàmm defal leen wér. di ñaan ak lu képp kuy bëggee caat caat bu mu la ñaanal bu baax a baax des ziar di la wax nag yoon bi nag ñu ngi si yoon bi jeexaw gën leen jàpp rek gën a jàpp waaw gën a jàpp daal gën a jàpp bu baax a baax. xale yaa foogale séeréer. waaw kenn léegi yaa foogale séeréer leen ku ta def kenn ma commencement fañ rek gid maa den góor fi rek maa fàtte waa si mo leen na caate ke jiloor mais gid den maak jiloo jiijak gidma joof yoro fof gidma ɓaɗo gidma jiɗo jiɗor maka maka maka mak sa jilore je min dawi deme ziyadena mak ziyara joof yora ziyara andun fof ziyara fa fatiga waw koppu ndono sotolami caati ziyarem ziyara groupe wasapes xana jaga combane jajam ndefleng tele ndefleng mais ziyara dina maka maka maka maka to contana dino an nga je min dawi den fedamo yara fiyane den jam fiyane waa di ziare waa Jonwar tam Jonwar rek ngat na mbudit na i parce que comme bafan ke ngat na andimteno ño andimteno conwara andimteno ñojoor andimteno ɓasla andimteno ɓasara fop ngaru an supporté yidam jeexa supporté rama mhm. andun fop ngaru an supporté yidam ken ken to comme bafane o ñuses waaw bo joge si loolu di sant nga xam ne ñoom lay àndal mm. su may dem doxi sama social muy ñoom ku mel ni moor moor mooy waa mafias fifty fifty bi quoi waaw mooy Mor mooy Serigne Maas ñoom Mamour ñoom Duudu ñoom si Alaay Silma ak ñoom Alaay Sarr bàyyi ñu kenn ñoom ardo gaa yëpp képp koo xam yaa ngi jàppale caa si combat combat bi passé caa bi mu lay gën di sant waa marché poisson bu baax baax baax a baax ak directeur marché poisson ak sama nijaay di jël nuyoo di ko teg si loxoom Tafa Ndiaye di sant Lamine Diassi bu baax a baax a baax jàpp na si combat bi début ba fin jàpp na si bu baax di sant sama waa écrit nag am ma seen fee di sant sama course yu baax ku mel ni per Père Da Père Diakhaté Grand Zil ak course pek ak mbay fay di ko sant bu baax di sant mbër yi fa nekk ñëpp bàyyi ñu kenn képp ku nekk Grand Dakar daal caar mu lay sant dëgg mi sant daamkan nag daamkan maa ngi koy sant bu baax a baax a baax di ko ziar di sant waa dibité di bàyyi mbaar yi waaw maa di sant bu baax a baax di leen di ziar di sant waa Liberté 4 waa zone B di sant waa Taïba di sant waa Colobane tamit di sant. waa sant nga ñëpp waaye yow tamit. di sant di ziar ñëpp waaw merci. jokkoo njal boo lakas waaw boo jëf lakas yow boo jëf lakas <laughs> waaw merci. jaajëf waay ok jërëjëf merci merci rafet na.